aleykum ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di bég suñu ndaje bi ñu daje fii tey di ndaje jullit yi e, ki nga xam ne mooy sabab te nga di ko xam ñu di ko na Ceerno Mulaay Sow te ñu bari dégg nañ ko ci nopp ñu bari dégg nañ ko ci gët ñu bari jote ak ñoom ba tax na mu invité it jullit yi ngir rek e, yàlla li ko yàlla defal daal neex ko lool mu bugg ko sant subhanahu wa taala mu ne ma nag moom imaam dafa buggoon mu laay bu ñuy commencé nañu jàng téere yàlla bi mu bég ci ba pare ñu julli ci yonant bi gannaaw loolu nag eh, leneen lu ñu ci mën a teg loolu loolu la ma waxoon naa leen ko jottali billahi min ashaytan rajim bismillahi rahman rahim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريما صدق الله العظيم asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi mbokk yi ñu ngi am mbégte di jàkkaarloog yéen fii ci LCS la scène sénégalaise mbokku téléspectateurs yi tey ji ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy Sicap Mbao fekk fii nit ku baax fekk fi nit koo xam ni ci dëgg-dëgg ku mën a dimbali doomu aadama fekk fii koo xam ni kuy faj ci saayir ak baatin kooku kon deetu ko présenté Sénégal kenn deetu ko présenté Afrique muy kan muy nit ku yàlla baaxal ñu ceddu mu leen sow di nit koo xam ni euh, waxuma la jullit yi muy dimbali mais yeneen action sociale yi muy def fii ci Sicap Mbao lu deme ni par exemple lu mel ni weeru koor nit ñi woor ba war dog mu jël ay matuwaayam jël ay otoom wër jàkka yi fekk fa jullit ya jël teraanga ji ko yàlla jox séddale leen ko kooku mooy Thierno Moulé Sow gis ngeen alxuraan di nga xam ni moom la jiital muy imaam imaam ñaa nga xam ni ci dëgg-dëgg saa yu ñuy fi fekk ko fi muy wax yàlla ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne Ceerno nag di nit ku yàlla may ci saayir ak ci baatin mu am xam-xam boo xam ne nag da koo doon ci maamam maam joxoon ko baayam baayam wacce ko ko tubaarkàlla mu am beneen doom boo xam ni ci dëgg-dëgg boo ñëwee fii ci Sicap Mbao ci kàttanu yàlla di nga ko xam rawatina li muy jëflanteeg ñi nga xam ni mooy ñu feebar ji ba sonn feebarub ñaari at walla benn wala at da ngay ñëw ci Thierno tubaarkàlla macha allah mu faj ko ci 15 jours wala 3 semaines wala 4 semaines ñuy ñaan yàlla guddal fanam. ci barke yonent bi waaye balaa ñuy sori dañuy jox suñu frère suñu xarit mu nekk ci télé yeeg rajo yi nga xam ni bépp émission bu Thierno mës a def moo koy laaj mooy laaj ñi nga xam ni moom la ñoom moom la Thierno faj ci ab bu gàtt kooku mooy kan muy jéego sow jéego ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Basirou Thiam Dogo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la dalal fii ci diwaanu Sicap Mbao ci kër Thierno Moule Sow eh, di fajkatu aada ak cosaan bu ràññeeku ci jamono ji à émission yu muy def ci télé ak rajo eh, dimbali gi muy dimbali jaamu yàlla yi mooy malade yi yaakaar naa eh, war nañu ñëw waxtaan seeg moom ci xam-xam bi ko yàlla jagleel mm-hmm. muy Thierno Moule Sow yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax euh, journaliste bu mag nga. Euh, suñu jëwriñ la ci mbir mi. waaw léegi laataa lool rek. Euh, dañ lay bàyyi nga nuyoog sëñ bi. ñu démare émission bi Bachirou Thiam. jërëjëf Diego Sow dégg ngeen ko ci kàddu yu rafet yi tubaarkàlla muy nit ku yàlla baaxal moom it di ñaan yàlla guddal fanam di journaliste bu mag. lepp lu Thierno wax nako ko lu mu dugg ci walu journaliste mom la ci andal kon dal ñu nuy ki nga xamni diko di diko di jox waccay wi ko yalla sun borom jox muy kan muy mu leer Sow Thierno ñu ngi lay nuyu Sow. ah ñong leen di fay bashiru gannaaw bañu santé yalla julli ci yonenté bi di nuyu mbokk auditeur yi ak mbokk talibé yi ak ñepp ñu ñuy déglu. ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo toog ci palaato bi woote mu uyu yombul ñi nga xamante ne ñoom laa doon jëflanteel muy sumay taalibe sumay nit ñi nga xamante ne dañu amoon ay jafe-jafe ñëw ma dimbali leen ba yàlla may leen seen ajo faju woo naa leen ñoom ñëpp ñoo ngi fii ci salle bi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant kontan na ci ñom bu baax di leen nuy bu baax baax yow bashiru suma nit nga bu baax nga ci man ben kenn nga ci man di la nuy bu baax baax du nuy wa télé bi wa LCS limay wax suma télé la di leen ñaanal ñepp ñuy kep kuy liggéey ci télé bi ma ngi lay ñaanal yokkute ya wa di leen nuy bu baax baax di leen sante di leen di nuy journaliste bu mag bi nga xamantene min na ko yag nañ dafa émission muy djégo so di ko nuy bu baax baax mhm. di nuy ñi ñi déglu ak ñi ñi sétane yépp ma ngi cierno mu So ma ngi leen di nuy di jital bu suma serigne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass man Thierno maa ngi nuyu suma suma jëwriñ suma sëriñ mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu waa Kaolack yëpp di ziar kilifa diine yi kilifa aada yëpp di leen ziar ñoom ñëpp euh, di leen sant di leen gërëm di nuyu gox gi ma dëkk mooy Sicap mbaaw maa ngi nuyu waa Sicap bu baax a baax bu di nuyu suma suma commissaire bi suma xarit la mhm. euh, commissaire sar di ko nuyu bu baakha baax ak euh, ka RG Mbaaw bi ak mhm. préfet ñep ñu nekk Sicap maa ngi leen di nuyu bu baax mhm. ku lim juum deug la jërëjëf cierno de ngeen ko ci wax ju baax ji wax ju rafet ji waye bo déggee ñu tudde ko docteuru docteur yi weddi gis bokku ci ndax loy lam lamé rek yaakar ci karam tuti di leen ñew waye dama lay bàyyi rek nga poser cierno ay questions dëgg la Basirou Thiam lu ñuy ndorteel ci question yi rek mooy buñ ne Thierno Moule Sow ne borom jinne yi buñ ne Thierno Moule Sow ne fajkatu aada cosaan bu mag bi kon pour laaj ko dina yomb trop ndax ci li mu mën rek lañ koy laaj muy faju faju aada ak cosaan bi muy def Thierno Moule Sow dañ lay gàkkantalee borom ginne yi ana lan moo waral ñu naan Thierno Moule Sow borom ginne yi Mhm. alhamdulilah rabbil alamin euh, question bi nga ma posé c'est important question bu ma neex la euh, Bo déggee ñu ne Thierno Moule Sow borom jinne yi euh, suma de dafa réeroon juróom-ñaari at Saliso defe naa ne nit ñi léegi miin nañ ko dégg nañ tout le temps may wax ci émission yi ak ci rajo yi kooku moo disparaît woon sept ans ci àll ba ba mu réere nag ci àll ba yàlla def ay jinne for ko mu nekk ay jinne yi defe naa ne nag jinne boo yàggee moom dalay sol xam-xam kooku mooy suma maam Sali Sow dégg nga bu baax a baax ay mag nag dem ci àll ba di sàmmi ba ñu demee di sàmmi ñu dem ci àll bi gis ay jinne xam ne ne jinne yi ànd ak nit kooku mooy kan mooy Sali Sow kooku moo jur man suma papa Mamadou Ali Sow Mamadou Ali Sow moo jur man Thierno Moule Sow xam-xam doon ne dégg nga bu baax a baax kooku nag ba mu ñibbisee jinne dañ ko topp lu toll ni ñetti téeméeru jinne ñoo ko topp ànd ak moom salli parce que salli dafa amoon dafa amaloon njëriñ waa dëkk ba ba mu réeree ñu bëri faatu woon nañ dégg nga bu baax ba ba mu ñibbisee jinney topp ko ànd ak moom nekk moom ci dëkk bi muy fa faj bu mu gàccee yi maanaam ku réer mu dindi ku feebar mu faj la kooku mooy suma maam man Thierno ma juddu fekk suma papa ak xam-xam boobu mooy Mamadou Aliou Sow man Thierno ma juddu topp tànk yooyu alhamdulilah rabbil alamin xam-xam bi fa la joge boo deggee ñu ne Thierno Moule Sow mi ngeel jinne ji Thierno Moule Sow borom jinne yi jinne dama ko doon suma maam moom la ñuy wax salli soo jinne yooyu nag laa nekkal mooy faajiru naajiru aljuma bente neng bintiyaane koli yaa moo nekkoon Ida Makka mooy ñu ma nekkal fii tey alhamdulilah rabbil alamin tey euh, ku feebar jinne yi ñooy faj man Thierno duma ci dara dama leen accompagner di dimbali doomu aadama yi nekk intermédiaire diggante jinne ak doomu aadama yi waaw. waaw Thierno Sow yaakaar naa loolu nga wax preuve la ndax tamit euh, da ci baax ñu xam euh, fajkat bi fan la jëlee li muy faj. Mm. Eh, Thierno Moule Sow nekk ak jinne est-ce que yomb na. Euh, alhamdulilah rabbil alamin ku la ne nekk ak jinne yomb na waxala lu am ndax jinne dafa dafa kéemaane dafa doy waar dafa doy waar jinne yàlla moo ko bind ci safara mhm. jinne soo amul bopp boo ko gisee da ngay dof am na ñu bëri ñu doon woote ne affaire jinne jinne ba ñu gisee jinne dañoo tàggoog seen sago dégg nga bu baax a baax ñun suñu maam moo traité jinne yi mhm. sallisoo suma papa traité jinne yi man Thierno ma judd ci diggante jinne yi mhm. loolu moo tax ma mun a nekk ak jinne man Thierno bu ma amul woon xam du ma nekk ak jinne suma maam moo liggéey yoon bi Euh, li ñuy wax maanaam euh, euh, da ngay nekk mbër sa papa nekk mbër man ah. dama fekk suma papa nekk. maanaam da nga koo doon waaw li ñuy wax doomu mbër jàngil bëre. jàng des na ñam man Thierno suma maam. waaw man suma suma famille yëpp ay borom xam-xam lañu. teewul sax àll damay dem ci àll ba gine yóbbu ay millions. pele de million dem ci àll bi façon mm. montagne bu ne ma yéeg fu ne ma yéeg fi nga xamante ne nit yi amuñu fit yéeg man no damay dem foofu fi nga xamante ne risque la boo demee ci dëkk bi ñi nga xamante ne waa dëkk bi ñemuñu yéeg foofu mm. man Thierno damay sacré suma life dem yéeg foofu mm-hmm. alhamdulilah yàlla maa ngi mooy sutural bu ma demee ma gën a yokku mm-hmm. waaw moo tax ñu naan Thierno Moule Sow Bingel jinne yi si Kaab Mbaaw mm-hmm. dëgg la waaw mais Thierno euh, Diego waaw dafa am benn question tuuti rek bu ma bismillah muy maanaam dañu gis Thierno. ci jamono yële passé. dëgg la demoon na fi Guinée. dëgg la am weer. amaloon na fi ay tukki. amaloon na fi ay tukki ay tukki. bu yaatu sax dëgg la. yaakaar naa romb gi Guinée yi. yaay borom Guinée yi. mais romb nga ay bukki. ak i gaynde ak i ñay. naka a def ba Thierno loolu bu déglu si waat. dëgg la xam nga lu waral loolu. mooy yërmande. ndax benn booy faj amoo yërmande doo faj. ci lu wér ndax nit day ñëw sonn ak feebaram. ñi ñaa ngi nii toog day ñëw sonn nee dem naa ci fukki sëriñ dem naa ci ñaar fukki sëriñ dem naa fu ne mënuma gis dara. dégg nga bu baax a baax dem naa ba man sëriñ amatul man Thierno ci loolu laa gannaaw dañ amatul te man ci laa yëngu danaa wan ne léegi ba léegi ñu ñi sëriñ am na bu ko defee ma xar suma tànk tubay suma xam-xam yi ma fekk suma mam yor ko moy jinne yi man tamé ma genn dem ci Allah ba outi sacrifier suma life bo xolé am image bu ri nga xamante ci Allah ba la ko defé fi euh, buñ la ko woné da nga nan nono ki day xaru yooyu yëpp ngir doomu adamay motax de nga bu baakha a gëna dëgeural a sa fajj ak sa dimbali doomu adamay ci gënaaw fajj bi biñ ma xamé lool mo waral may genn te Allah ba lu ne nga fay gis ay bukki ay segg lu ne waaw lu ne ngay gis waaw boo amul bopp dëgg-dëgg da ngay dox fa la nga dee mais nag am na lu ñu yàlla jox mooy jinne yi nooki nooki sam suwi kin ajib yaa may mun a kabloo shin mayloo shin wal jinne muusa wal nu bala fu ñuy dem ñoo la ñuy àndal ñooñuy sauvé ñooñuy dimbali ba nga xamante ne fu ñu mën a dem duñu am problème ñun bu amuloon xam-xam dee nañ bu yàgg ndax man Thierno su ma amuloo xam-xam faatu naa li ma faj ci ay nit xaw ma lu mu toll. waaw ma faj ci ay nit. waaw Basirou man dafa am li ma bëgg a laaj Thierno ndax euh, ah. surtout ci wàllu Guinée boobu noonu. waaw eh, dafa am ñoo xamante ne Guinée daf leen sonal. Hmm. surtout xale yi jàng ci école bi Guinée daf leen di dugg sadd leen. Hmm. léegi man li ma bëgg a laaj Thierno mooy est-ce ku Guinée jàpp est-ce mën na ko ñaanal ba Guinée boobu génn ci moom. Hmm. lu mën a nekk la daanaka damay dégg yeneen sëriñ yi toog ci télé ak radio yi ne dañuy woo jinne ba mu ñëw dóor ko dagg karawam loolu wax bu yàqu la jinne ma ne jinne jinne neexut a ñeme de tur bi moo yomb mais jinne boo ko gisee amoo xam-xam da ngay dof li nga xamante ne day am fukki bopp ak ñeent ah ñaar fukki bopp ak juróom-ñaar kooku ah, doomu aadama bi nga ah, xamante ne doomu aadama bi nga xamante ne moto cinquante kilos ah. ah moto trente kilos boo nee da ngay woo jinne ba mu ñëw dóor ko loolu wax bu yàqu la ne waxante dëgg ñu bàyyi tricage yi ak ñi nga xamante ne toog si télé aussi di naan euh, jinne bi génnal si nit ki jinne bi mooy wax nit ki waxul jinne mënul wax ci làmmiñu nit loolu wax bu yàqu la jinne mënul wax ci làmmiñu doomu aadama loolu ay politique la ay din la xam nga léegi Sénégal boo gisee ku jóg wax ci jinne a travers man Thierno mm. ci man la gars yi di dégg moo tax ñu wax ci waxu jinne gis nga jinne bu jàppee nit man cerno jinne yi ma yor mooy faajiru naajiru aljuma bentene bintiyaane ko ni caamone ko ni damaka jinne yooyu laa yebal ñu dem si moromu jinne kàccoor yi nga xamante ne ñoo téye xale bi parce que jamono ji affaire crise dafa bari c'est important lu mu wax ni dafa bari bari na ñi ma faj ñi nga xamante ne dañ daan crise di daanu di say di daanu di say mhm. te kenn ku ne xamante ne crise neexul a faj ku amul xam-xam dëgg munoo ko faj waaw mais alhamdulillahi rabbil alamin jinne yi man na yor mooy faajiru naajiru aljuma bentene binti ane koni caamune koni bu ma jàqee jaaxle jinne yooyu ñooy ñëw taxaw te lu ma bëgg ñu def ko bu ñu fekkee jinne kàccoor dañ lay daggate bu baax a baax man cer new ma damay woo jinne door ko de mais li ma yor waaw mooy aljuma bentene binti ane koni caamune koni jinne bu ñu fekk ñu ñu réglé la waaw c'est important waaw Basirou Thiam yaakaar naa wax euh, bu positif boo ko déggee di vraiment man gëm naa ni jinne bu jàppee nit mhm. Eh, yow nga jël ginne yi nga yor eh, ñu dem wax ak ginne boobu jàpp ndaw si ginne googu génn ci ndaw si yaakaar naa loolu eh, lu yomb a gëm la parce que tamit lu mel ni ginne daan nañ dégg suñu maam yi naan ginne ëppee na nit Eh, doole lu tolloog eh, ñeen fukki yoon kon pour eh, nit woo ginne ba mu ñëw dóor ko man loolu bu ma ko mosaan a dégg dafay lëñc suma xel quoi kon yaakaar naa li Thierno Moule Sow wax nopp mën na ko nopp mën na ko dégg waaye Thierno lan moo wutalee jinne ak rab ah, alhamdulilah rabbil alamin jinne ak bokkul dañu xaw a ute ndax nag euh, lu ñuy wax ndëpp ak ay tuur ak ay xàmb ak ak ak rab ba léegi bokkul waaye Thierno doguma la eh, rab dafa nekk li nga xamante ne Basiru li muy yàq ci jamono jii dafa bëri surtout suñu jigéen ñi mm-hmm. eh, da gis ku ëmb ba ëmb bi am ay trois mois ëmb bi yàqu mm-hmm. da ngay gis tamit da lay tëj yow mii di ku góor ki mm-hmm. eh, da lay tëj maanaam sa am am bu doon danga doon am fukk muy wàññeeku da ngay dem ba dootoo amati dara mu lay Guinée rab yan xeetu manifestation lay def ci doomu aadama ah alhamdulilah rabbil alamin rab dafa lakkal jamono ji ñii ñi dañu sonal doomu aadama yi hmm. nee naa la man Thierno maa ko tuddee jinne kàccoor ah. jinne kàccoor moom ak jinne bokkul jinne moo ëpp doole rab dëgg la jinne dafa yor bakkan comme nit dafa yor jëmm hmm. jinne moo ëpp doole rab hmm. kenn du ko wax dégg nga bu baax a baax rab dafa dugg di sonal askan bi boo xool si ëpp ci wàllu douche yi ci salbe yoon ah yooyu yëpp rab day faral di nekk foofu maanaam am na yére yi nga xamante ne boo ko solee rab da lay yomb a dugg te en même temps kat yi ñun ak yi ñoo nekk yàlla dafa bind jinne bind doomu aadama bind malayka dëgg la dégg nga bu baax a baax mm-hmm. rab ci xeetu jinne la mais jinne moo ko ëpp doole dégg nga bu baax a baax mm-hmm. am na rab yu bëri nga xamante ne dañuy faral di dugg nit maanaam nit ki di faral di gént di sëy da koy arrivé comme nu mu waxee mm-hmm. euh, da ngay ëmb nekk jigéen ëmb dégg nga bu baax rab bi ñëw ànd ak yow ñenn ñi sax dañuy ëmb ay six mois xam nga kooku maanaam tuuti moo desoon mu am. moo si ëmb bi yàqu mm-hmm. Mm-hmm. mais loolu moo tax jigéen ji nga xamante ne euh, sëy nga rek war nga mën a ut musuluwaay. Mm-hmm. muy wàllu rab di wàllu dëmm di wàllu jinne ndax rab nag dafa sonal nit ñi nañ waxante dëgg. dafa sonal askan bi man Thierno li ma ciy faj. dafa bari dafa bari dafa bari ñi nga xamante ne ñu rab jàpp ñi ma ciy ñaanal ci yàlla. parce que ñun nag am nañ li nga xamante ne comme safara ak caas la. waaw jinne yi ñu yor dégg nga bu baax a baax bu ñu la joxee ay mbir yi nga ne boo ko rab du la Ah, Thierno euh, Diego dafa am benn entre parenthèse boo xam ne rek. waaw maanaam dafa lim jinne ak rab ak rab te foofu maanaam loolu ñuy wax dem na mu yàlla baal da ci am. Thierno est-ce que maanaam dem ba léegi. maanaam parce que dafa mel ni gars yi dañoo jël conseil wala nekkonutu ci réew mi <laughs> yooyu ndax ku dem mu jàpp par exemple nan nga koy mën a saafara. waaw lu am la li ma laaj question bu ma neex la question bu ma sawar la li ñuy wax dëmm lekkatu nit yi seede Allah nitu guddi. Euh, fii nag Sénégal boo nee dëmm ñu ne uju billahi mina shaytaani rajim man Thierno ma ne loolu wax bu yàqu la jàngoro bi nga xamante ne day lor waaw kooku dañ ko war a yoole ñu wax ko nit ñi xam ko ñu fexe ni ñuy trouver solution mais jàngoro bi nga xamante ne day lor nit ñi parce que armée yi ñu bëri ñoo ngi tëdd foofu dëmm ñoo leen fa yóbbu dëmm lu am la nekk lekkatu nit nit yaay lay doon bi nga xamante ne dafa am xam-xamam xam-xam bi nga xamante ne chaque guddi day soppaleeku dégg nga bu baax a baax benn laax bi benn laax bi téeméer lay doon beneen bi beneen côté bi laaf bi téeméer nit lay doon mais nit la bi nga xamante ne day changer melukaan ah beneen nit lay doon. bi nga xamante ne mun nga tëj sa ne nga tëj palanteer. dégg bu baax a baax. Euh, si jaww ji lay jaar fekk la mun nga nekk Amérique mun nga nekk Arab Saoudi jamono yi ma demee Arab Saoudi am nañu ma fat ñi nga xamante ne ay dëmm ñoo leen jàpp. ba ñi ñu ne ma ah, Arab Saoudi am na ay dëmm ma ne waaw dëmm fépp la mun a nekk fépp la te xeet yëpp am ay dëmm xeet yëpp am dëmm dañ lay man Thierno am naa ci ñaar nga xamante ne dama lay solal tubay weñ solal la yére weñ ñenn ñaama ñaama waataama ñaamu dee maandu lu gis nga dëmm bu la jàppee da ngay sa fit bi du toog guddi gi da ngay faral di gént ay oto di gént ay nag façon gént bu bon bu ne da koy gént bopp bi day faral di métti mu jàpp sa yaram bi day tàng jër dégg bu baax a baax dëmm yi seen bopp ñoom léeg-léeg dañu may wone ma Thierno yaa ngi ñuy weer yaa ngi weer waaw ah, ko oui lañ la wax lenn am na sëriñ yu bëri ñi nga xamante ne da ngay dégg rek ñu ne ndeysaan kii dafa jékki-jékki dee wala jékki-jékki feebar parce que boo nekkee ñaankat doon sëriñ borom xam-xam. te amoo bopp te non mun nga am bopp sax mais boo amul lu la aar. waaw nga fajal ku nekk Kees nga fajal ku nekk Touba nga fajal ku nekk Kaolack dem seen bopp dañuy kompaloo ne ceer bu la sot moo yàqal suñu xéewal dañ lay sot bu ñu la sotee nag boo amul xam-xam dañu lay faat dëmm du lekk comme nu ñuy lekkee yàpp ci dibiteri yi non ci xam-xam la lay lekkee waaw ci xam-xam la lay lekkee da lay muucu da ngay dem hôpital su ma yenn patient dañ naan damay dem hôpital ñu bindal ma ay pitax. dama animé ay fer naan naa ba sonn ma ne ko boo naanee fii ba euh, kii lu deñ foog nga am ñaan bi. dëgg la. foog nga am ñaan ndeysaan su ma benn taalibe alaaji a la jóge moo ngi fi moom tamit dina témoigner moom ay dëmm ñoo ko jàppoon ndeysaan ah. sonn sonn sonn alaaji loo mhm. dafa sonnoon sonn fu ne la dem mais ba ko yàlla booleeg man mu ñëw këram si guddi ma am benn cuuraay bu ma tuddee dàq dëmm waaw man Thierno ma téye ko suurul ko suma bopp. dégg nga. waaw daawul nelaw guddi. nee nee na sax demoon na ba hôpital yi tere ko tëdd. waaw calculer loolu. toog rek lay def rek dafa naa témoignage boobu yow fekkee woon. fekk naa dëgg euh, kon dem lu garaaw la. bu ñu ko weddi nañu fexe nu mu fi jógee. Hmm. mais bu ñu ne dëmm nangam nangam lu am la nit lay door. ma ne mun nga ko bañ a gëm mais bu la jàppee da nga koy gëm waaw waaw man Thierno li may faccu lu dëmm jàpp dafa bari mais nag dama lay solal tubay weñ solal la yëre weñ ñenn ñaama ñaama waataama ñaamu de maandu lu te dëmm dañu am seen hélicoptère hélicoptère bi cent vingt cinq litres dret lay def dret boobu laaj ma fan lay jóge fan lay jóge Thierno doomu aadama yi lay jóge parce que li nga essence waaw loolu mooy seen essence moom la ñu waroon dem essence yi euh, dem jënd essence. waaw mais ci nit yi ñuy jël tey bu ñu jëlee ci kii 2 litres jël ci kii 2 litres suba loolu bu ñu ko dajalee dinañ am seen essence fu ñu bëgg a dem fa maanaam loolu day bokk ci ñu leen di dimbali seen waaw Thierno Moule Sow li nga wax lu am solo la mais man dafa euh, am loo xamante daf ma jaaxal eh, parce que Sénégal boo boo jëlee majeure partie gëmuñu nitu guddi parce que boo waxee ñu ne mosoo gis kuñ ne kii nitu guddi la maanaam mu am ay mandarga yoo xamante ne ne ni eh, yor na ko te nit simple yoru ko léegi lan moo waral nit ñi di weddi nitu guddi te yow ngay faj ku nit guddi jàpp Thierno. ah ma ne. yenn yi la rek. wala ñàkk a set. man Thierno maa ne ku weddi dëmm amul dëmm na parce que dañu wante dëgg. waaw ñun du ñu judd ci faj bi màggee ci faj bi nekk ci faj bi ah dem ba ci digg bi ne dëmm amul. wax bu yàqu la man na hmm? su ma xëyee dañuy fàtt nit yéen ko indi. dañ koy leere dañ koy teg ci ambulance teg ko ci puus puus boot ko indi. Hmm? ma def su may xar baax ak sumay ñaan mu jóg. kon nit bu taxawee suma kanam dëmm amul. damay jëflante ak yow. waaw waaw dama lay naawal. parce que damay xam ne ne yow dëmm nga. te ba tey kenn musul taxaw suma kanam ne dëmm amul. ku ko def ma naaw loola. day dëgg la ah, waaw ngeen baal ñu. waaw ah. ngeen ngeen. Euh, ah. euh, ñu ngi leen di fàttali ni euh, kii mooy bu Bouleye sew dëkk ci Sicap Mbao mm-hmm. nga xam ni dégg ngeen li mu wax ci dem ak ci ram deneen jàll ak moom feneen waaye Thierno dañ lay bàyyi nga continuer ci wàllu dem googu kon Thierno ci wàllu dem googu nga continuer xam nga Sénégal naa leen wax lenn ñi ñaa ngi dee ñoo ngi wax Sida. di am na feebar bi ñuy wax fan yi li si ëpp luy rey nit ñi wàllu seytaane la nañ ci bàyyi xaritu euh, ko hôpital yi ñoo ngi def lu ñu mën mais bu nit feebaree dëgg-dëgg nañ ci boole sëriñ si dëgg la nag euh, dangay dem ci ay sëriñ war ba sonn doo gis dara mais bul découragé xam-xam ba tey am na ma ne ku ne ku ne xam-xam amul sëriñ daf la jàppul am na ñi nga xamante ne gëmuñu woon sëriñ mais ba ba leen sëriñ jàppee dañu daw ñëw ma ne tubaab bi sax dañuy ñëw ci man asantuma nit yi ñuul yi. dëgg la su ma kër tubaab bi dañ fi ñëw. nit ñu xees man Thierno africain yi rek laay ñaanal. dëgg la man international boo dégg international. waaw ñëpp dañu leen di ñaanal. à travers xam-xam bi ma yor mooy jinne yi. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. nooki nooki sam suwi kin ajib yaa may mun. kabloo Chine.

90 pour cent yëpp dañ koy faj. dëgg la waaw alhamdulilah rabbil alamin. Euh, aduna bi xam nañu Thierno Moule. doomu aadama yi ñoo ngi may seedal. dëgg boo dégg ñi ñaa ngi may seedal ndax nit bu ñëwee sonn du ma damay xar suma tànkul tubéy ak suma xam-xam ak jinne yi mooy faajiru naajiru aljuma bente ne ma def suma effort ñaanal ko pour yàlla ma jugloo ko dëgg la dañ fay mais li ñuy fay mënul jëriñ. dëgg la. man liggéey bi may def. Ah. Euh, yàlla loolu la gën a bëgg faj sauver jéego moom mu tuddee sauveur de la vie. dëgg la ndax dañu yenu nit indi ko mbokkam génnee ci moom yaakaar. Hmm. famille am yëpp ñu ñëw mu futteeku man cerno hmm. xeex te nag daal booy faj boo amul xam-xam. Ah. doo gudd fan. ah bon waaw. Ah. boo amul xam-xam parce que dafa foog nga am xam-xam ma ne. dëgg la. boo ma gisee may toog di wax ba tey ak fi ma jaar waaw maa ngi nuyu waa Touba di leen ziar bu baax am naa fa cinq ans biir Touba Mbàkke bëri na sëriñ yoo xamante ne dañuy ñëw foofu bu ñu eggee dañuy daw waaw di nuyu waa Kër Sëñ Fallou bu baax di leen ziar bu wër. am Thierno Sénégal adduna bi xam nañ kan mooy Thierno Moule kun fa yakunu. innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu Moule kun fa yakunu. xam-xam bi may def dama ci jiital yàlla ak yonente bi. Mhm. di dimbali doomu aadama yi. ah di dimbali doomu parce que faj boo koy def foog nga am dimbal aussi. Mhm. Mhm. dëgg la waaw Thiam laataa ñoo. nii rek buñ def luddul dul mbokk yi ñu ngi fi ci diwaanu Sicap Mbao eh, ci keur Thierno Moule saw mhm. eh, Sicap eh, ci terrain municipal bi ak mhm. kërëm ñoo ñoo jàkkaarloo kër gi benn kër gu weex la gu am ñaari drapeau yu xonko drapeau bu ne mu ngi am juróom-ñaari étoile fofu moy siège u Thierno Moule kon ku bëggoon a jokkoo ak Thierno Moule koy wo ci 77 781 62 40 77 781 62 40 wala nga wo ko ci 76 126 73 113 42 76 126 73 42. Bachirou Thiam duñ def lu jàll ci beneen ponk. ñu naan liggéey bu bon parce que liggéey bu bon tamit faw ñu waxtaan ci ndax dafa nekk li nga xamante ni dafa sonal askan wi lekk liggéey bu bon am na dëgg liggéey bu bon am na ñu liggéey la noot la am na. dama bëgg ñu laaj Thierno liggéey bu bon ana. lan mooy saafara si. ana lan mooy saafara si. keroog mu dee. bisimilah. wàllu liggéey bu bon. liggéey bu bon lu am la. Mm-hmm. ñun jamono ji nit yi dañuy soxorante. Mm-hmm. yàlla mooy may nit. dëgg la man man ñoo Basiru ma gisee sa yére bu rafet. Mm-hmm. xaw ma foo ko jëlee rek ma xëy soxore la teg la bët. ñàkk gëm yàlla. mais su ma gëmee yàlla. yàlla dencal na ma li ëpp lu sa yére bi. su ma gisee nga sol yére bu rafet kay naa la ne Basiru macha allah lal na. waaw mu yéene la ko. yàlla mun na la dencal mais bu ma gisee Basiru sol yére bi rek ma xëy rek ak ko ñàngal yooyu gëm yàlla la loolu moo fi bari ci jamono ji dëgg la ma ne même sëriñ si dañuy xeexante mm-hmm. gis nga fii ku sanguwul dañ lay sang yóbbu armeer ku takkul ah. dañ lay takk yóbbu armeer dégg bu baax a baax ku suuruwul dañ lay suur ci suuf si parce que dafa bari jamono ji liggéeyante bi nit yi dañuy liggéeyante ci bureau yi ci entreprise yi ci kër yi ci sëriñ si ci lépp dañuy liggéeyante man Thierno sëriñ yu bëri dëkkuwoon nañ ma ku ma dëkku ñàlli lu ñuy wax fas ko gaynde la ko fecc yombul maanaam lu ñuy wax teli teli meli kumba meli horaɗo hiitaɗo kala han kala hun titilomo keri noddamo keride notomo tentenire tanomo jeeko e jeekomo sowru soti ko tande gaño ceerno moulin sow ceerno moulin sow diwi tippi allah gaño ceerno moulin sow maayi leydi leydi ubbi euh, loolu du soxor aar sa bopp ci jaamu yàlla la bokk ndax dañoo nekk jamono ji nga xamante ne ñun ay la lañu mm-hmm. man ceerno missionnaire la kon boo demee ba nekk missionnaire di war a dimbali nit ñi comme ni nga ko wax sànq ci jàkkee ak ci jumaa ak yooyu mais boo toogee noonu di faj nit ñi aaroo sa bopp wala yoroo xam-xam da da ngay gàtt fan dëgg na da ngay gàtt fan jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ñu fàttali leen ni euh, ñu ngi fii ci Sicap Mbao kër Thierno Moulel Sow gis ngeen numéro boobu ñu daw ci suufu écran bi ku ko soxla rek nga woo ko ci ñaari numéro yooyu nga xam ni moom lañ bind ci suufu écran bi kon dañuy jëm ci li nga xamante ni bii mooy ci wàllu cat cenn lan mooy cat ndax am yoo xam ni yaakaar naa ni cat da leen di jàpp am ñoo xam ni dañuy dem ba jàpp cat te tubaarkaal macha yaakaar naa ni loolu ku ñëw ba fii am naa yaakaar ne dana dañ cat nan lay nan lay kiyéen yi jaɓtoke la bu bowa bonde jeygol nden wawi jeygol bowa boddi mondi jeygol nde wawi jeygol bowa jinnaji bonde jeygol nde wawi jeygol ñif kif tooke la buñu xëy di wax ci bant bu yàggee bant bi day dee assentement doomu adama lammiñ xëjul ci nit bant lammiñ bu xëjul ci bant nu muy xëjee ci doomu aadama cat ñetti façon la maanaam da ngay catu sa bopp def li lay cato dégg nga bu baax a baax cat dafa garaaw tooke la tooke du xam ngeen deug cet bu la jappé bu doon da nga yoron aduna ci bir day xey muy jeex di jeex di ngeer de nga bu baaxa baax daf lay yakal lo dugg day tas lo yaakaar day tas damay dégg suma mbokku fajkat yi di wax amuñu garap cet lool wax bu yakku la amna li nga xamantene boko defé sa bop lamine du la munal dara nit bu bayal di yow di wax ci yow wax du ñaaw day dem ba gemmi gi day am ay picc am goom dama na bu démé nak ba nit ki gemmi gi wax am goom dootul talati wax ak yow do lu am la man ceerno cet mënu ci man dara ñaari deug la lañuy wax bala nga ngaa jaay nga laax lek man cerno li eh, may dimbalee ya doomu aadama yi loolu defal suma bop man cerno cat munu ci man dara te ñima sang walu cat ka di alhamdullah rabbil alamin alhamdullah rabbil alamin amna amna ñaanam waaw kon ñu delu ci li nga xamné rek jéego moy euh, comme mi ngi fi si Cap euh mu fi aussi dara waaw dara jo xamné ne jël terangam jiko yalla jox fay ñi jangalé en même temps que xalé yi fi jang maanaam genre internat la kon ñoom dara waru leen suñ jógee ci loolu ñu dem ci aide bi muy dimbalee julliti yàlla yi par exemple lu demee ni weeru koor dëgg la mu jël lu war a mat huit millions dëgg def ko mburu ak café dëgg la fekk julliti yàlla yi nga xam dañoo war a dog mu jox leen ko ceerno loolu nan nga ko mën a xalaate alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax daara bi mu ubbi daaru laay laa ko tuddee mhm. maanaam jeex ci Baye Niass ndax ñun dañu nekk ay gone nekk ndaw yàlla dénk ñu xam-xam def ñu kilifa ñuy liggéeyal yàlla ak yonente bi man ceeru missionnaire laa nekk di jàppale doomu aadama moo tax mu ubbi daara bu mag mhm. xale yi di jàng duñu fay dara mhm. tout le leen di neexal pour ñu gën a sawar gën a kontaan moo tax ñu ubbi daara bi waa Sikambaaw yëpp seen doom yi dañuy ñëw fi jànge ak yeneen gox yi ak li nga wax ci jàkka ak jumaa lu baax boo koy def dafa bax nga wax ko ñi ñi dégg lu ñi def du puuxare du wanewu mais dafa bax nga wax ñi ci mëna dégg suba suba ñi ci jéem def lool tamit ndax kuy def lu bax euh, nako wax ñëpp dégg ko dégg bu baax ba ñu gëna dugg tamit ci émission bi waxtaan ci malade ak yoyu hmm. ak fièvre bi gëna waxtaan c'est important ñu def émission bi nga xamantene pour nit yi gëna mëna xam kan moy cierno dëgg la hmm. dëgg la waaw basiru am da ci bax tamit gannaaw ba nga ko laajee wàllu hmm. dafa am lo xamantene tamit manam day yak comme li chat di yak moy walu beut bu ay mu Moule bët bu ay nan nga ko jàngatee. Euh, bët dafa garaaw. Mhm. am na bët yi nga xamante ne dañuy gis ay 3 kilomètres. ay bët yi dañuy gis 2 kilomètres. beuti graw te bëti en général ñi koy yor du ay nitu simple mm-hmm. ñu dañoo bok ci cadre deum man Thierno ma ko tudde deum ah. aduna yeb xamne parce que beuti we mun nañ xol lu nekk sa boutique mm-hmm. mun nañ xol lu nekk sa bir bir bi mm-hmm. deeng nga bu baax baax beuti we lu ñu xol day yaq bo xexé bëgg a lekk buñ la né tak beut mar day talib lekk bi du res du res wa day yëg ak a man Thierno amna ci ay ñaan comme li ñu wax fossé boko défé sa bop nit bu la xolé beut bu bon da koy for ci ci souf lu ñu wax fossé boko défé sa yaram nit bu la xeeloo rek day for bët yi ci suuf waaw lu am la lu am la li nga wax dafa sonal nit ñi waaw Basirou Thiam dogo lu am solo la mais def rek lu dul fàttali mbokk yi ñu ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu kër Thierno Moulay Sow la fii ci diwaanu Sicap Mbao en face terrain municipal bi ku bëggoon a jokkoo ak moom da nga koy woo ci 77 781 62 40 77 781 62 40 wala 76 126 73 42 76 126 73 42 Thierno Moulay Sow ba tey dañuy dugg ci wàllu jàngoro yi ndax tamit ndax tamit dafa nekk lu am solo muy wàllu eh, ku bëgg liggéey eh, liggéey jafe ko est-ce que bu ñëwoon ci yow am nga ñaan yoo koy ñaanal ba yàlla may ko. alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla julli ci yonente bi wàllu liggéey lu am la jamono ji ñun ñi dañuy some dañuy chômer xale yu góor yi bëgg nañ liggéey da ngay jàng ba am sa diplôme wala nekk ci di góorgóorlu ba am sa métier mais pour nga am liggéey mu tëla mais alhamdulilah rabbil alamin am na ñaan yi ñu mën a def lu ubbi nit bëri na tey ñi nga xamante ne dañ doon chômer nekkoon ci ay seen chômage bi dafa bëri chômage dafa bëri Sénégal liggéey amatul xale yi waaw ñun nag yàlla côté bi ñu jox mooy xam-xam mm-hmm. dinañ la sang ay bayre li lay ubbi ba nga mën a am liggéey am dañ koy defal nit ñi xale yu góor ñu bëri tey ñoo ngi yor seen i kër yor seen i waajur la ak man cerno am na ñaan yi ñu lay defal da ubbeeku da ngay da ngay am bu baax sant yàlla bu baax a baax cerno mu lay ana lan mooy waral tëju maanaam yow buntu boo fëgg du ubbeeku umu daal maanaam waaw umu umu umu ak tëju yëpp benn la mooy waral loolu waaw mun nañ la sëf wala ñu dëj la wala ñu def ay liggéey ci armeer maanaam liggéey bu bon da um dañuy wax liggéey amul mais kenn weddeetul liggéey amul am na liggéey yi ñu def ci armeer yi dañ koy def ci douche yi dañ koy def ci géej fune lañuy def liggéey xam nga nit ku bon rek euh, fune ne surtout maam na serigne xamante amuñu xam-xam manam xam-xam bu bon rek lañuy yor yak nit rek lañu dañ ci gaaw dañ ci gaaw pour ñu yak la dafa yomb mën nañ ko def fune def ko ci ay guuy fune lañ ko mëna def pour yak nit mais ñun am nañ ci ñaan yi nga xamante ne ci kattanu yalla euh, bu ñu la defalee ñaan lepp lu nekk ci yow day deñ day sepp dañ koy seppi comme dëj dañ koy seppi comme dëj defal la li nga xamante da lay ubbi inshallah nga mëna am liggéey ar sa bop c'est important kon eh, damay laaj rek Thierno manam ci walu làmmiñ ndax yaakaar naa ni ciat ci làmmiñ lay jóge ak ci beut manam des fois nit ki ñu ni ki de làmmiñ ko japp mm-hmm. gémmiñ moy ciat rek waaw gémmiñ waaw mm-hmm. ah, gémmiñ mom lañ waxon sang moy ciat ciat xam nga wolof mo naan ciat mm-hmm. mais lool ci làmmiñ lay jóge amna na nga xamantene dañu am ay tup tup yu ñuul ñooñu lu ñu wax day yàqu luñu wax day yàqu motax ci nit ki ar bopam c'est important amna na nga xamantene ne tuddu day tudd deug la manam ay gémmiñu musiba lay doon yi nga xamantene mm. buñu luñu wax day yàqu motax lepp lépp lu nit yi def nañu lakatu mm. lu leen di ar c'est important mm. waaw ñun am nañ ci ñaan yi nga xamantene boko defé sa yaram gémmiñ yooyu nit bu la tuddé gémmiñ gi day am waga pitch du mëna wax tax li ngay def sa yaram da ngay ñëk sa bop ar sa bop li nga xamantene mo na a sonnoon aar sa bop aar sa bopp ci jaamu yàlla la bokk yooyu yëpp koy def léegi Thierno euh, dañu ñëwaat ci li nga xamante ni bii rek euh, mooy maanaam ci ni ngay faje mm-hmm. euh, da ngay ñëw par exemple fekk nit koo xam ni dañ la ko indil di ko meeb lu mm-hmm. mën a dox mm-hmm. nga dugg moom ci roq bi ànd ak sa gaay yu baax yooyu muy jinne yi mu jóg mën a dox it soxlaam loolu ban jàngat nga ci mën a def. waaw mooy li may wax rek lépp looy yor na nekk lu dëggu xam-xam dafa war a dëggu te wóor. Mhm. ndax nag am na li nga xamante ne boo ci duggee dañ ciy des. Mhm. am na ñu bëri ñu nga xamante ne dañuy wax dañuy ñaan mais dañuy ne ay dëmm da ko jàpp ay quarante dëmm. Mhm. Euh, vingt vingt dëmm trente dëmm bu jàppee nit ñëw sëriñ bi boo da ngay dugg ci diggante kooku mais dëmm yi dañ lay shot. dëgg la ah, am na ñi nga xamante ne aussi dañ leen def liggéey bu bon nga ne da ngay dindi liggéey boobu yow sëriñ bi boo amul garantie loolu day këpp sa kaw wala jinne yi bon jinne dañuy soxor ndax am na jinne nga xamante ne dañuy jàng alxuraan ba ne ar boo nee da ngay toog di jàng ay laxat jaakum ay ayatul kursi dañ lay tari ay million laxat jaakum million ayatul kursi teg dóor la ko waaw waaw parce que jinne yi eh. am jinne yi am dañoo jàng am na ñu si kàccoor comme ñun jullit yi am ñoo xamante ne dañoo jàng ba ne ar mais yëfu kàccoor la ñuy def dëgg la kon euh, ut ñaan c'est important te faj faj ak xam-xam bo démé ba diko def dang ko wara am c'est important. deug la waaw Basirou Thiam. waaw sank Thierno dafa développer ci walu nitu goudi liñ nane dem waaw mais dafa am limako bëgg laaj. Mhm. pour mu baxé ko ni ñi seetaan. moy mhm. nitu goudi ku mu jàpp yan mandarga lay def ci yow naka ngay xamé ni man kat nitu goudi japp na mm, waaw alhamdullah rabbil alamin ben fit bi du tok sa fit bi. danaan tëf teuf teuf teuf benn bopp bi day faral di metti mhm. yaram bi day tang jeur ngay faral di fat mu jàpp sa wet yi loolu tout le temps ñi ñaa ngi yeewu loolu bu baax nan ma cerno yow da nga laal feebar comme yi may wax ni da ci baax day yee nit ñi hmm. da ngay dem ci hôpital di faju ba sonn ñuy def analyse am nga rajo yooyu amuñu rajo amuñu analyse yooyu analyse yooyu ñun ñoo ko yor borom xam-xam bi ku mel ni cerno bu la dëmm jàppee dama la naan jàkk xam ñaata dëmm moo la jàpp loolu tubaab yi xam amuñu loolu dañ waxante dëgg ma ne ay africain lañu hmm. ma ne ku gëmul sëriñ sa maam gëm na sëriñ ku gëmul sëriñ sa papa gëm na sëriñ ku gëmul sëriñ Serigne sa yaay gëm na Serigne. dégg nga bu baax a baax. Euh, lu am la lu am la c'est important. waaw Basirou Thiam yaakaar naa liñ ñu cërale woon ci waxtu. waxtu bi dab nañu. waaw mais laata ma laa jox euh, nga tàggoog Thierno Moule Sow man dafa am rek li ma ko bëgg a laaj. waaw allez mooy lenn. Mhm. Thierno Moule ana lan mooy sa secret parce que ñi lay témoigner dafa bëri. Mhm. émission bu mu def. Mhm. ak ñi koy témoignage day wute ak ñi ko seede woon. ana lan mooy sa secret ba koo faj. mu seddal la alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla lépp yàlla ak yonante bi la bu neexoon yàlla bu ma fajee nit bu wër mën nga am xam-xam comme li ma imaam waxoon foog nga am xijaab imaam imaam ndeysaan nit ku baax la imaam ñaa nit ku la maa bu mag la waaw euh, xam-xam dafa war a dëggu te te lépp li ngay def da nga ci war a def sacrifice sa life bu jaaxee ñëw ba ci yow jaaxle ñëw bëgg nga dimbali ko mais yow mën nga war nga mën a jaayante ak li nga yor nga dimbali ko yàlla jàppale na waaw su ma secret loolu la ak jinne yi ndax kat yi munoo jaayante te amoo xam-xam c'est impossible mhm. dama yor ay jinne ñoom ñoo may wutu ñoo may jàppale mooy faajiru naajiru aljuma bentenen bintiyaane koni caamone koni damakka dañu bari mhm. dañu bari mhm. bu nit amee jafe-jafe boo ñëwee mais jinne du moromu dëmm kenn du ko wax ma bu mu jëm. ci dëgg man binduma li ma yor ay jinne la. ñoo may jàppale. ñoo lay jox témoignage yi bëri yëpp loolu la rek. waaw est-ce que jinne maanaam seen i at bari na. Mm-hmm. waaw kay loolu c'est important. jinne dundit jinne atam bu gën a tuuti. Mm-hmm. dana dund juróom-ñetti téeméeri at. ñun léegi mënuñu dund soixante-dix ans mënuñu dund quatre-vingts la waaw. jinne dana fukki junni at. jinne du nit jinne buy toog. Mm-hmm. day wéeru. jinne du lekk lu tàng jinne du nit. dëgg la li nga xamante ne moo gën a gaaw xef ak xeppi. waaw loo xalaat xam na ko mais kooku du nit yàlla boo ko bind. ay mbindeef yàlla lañu xanaa xamul jinne yi ñoo ñu gën a jege suñu borom. waaw jinne yi ñoo ñu gën a jinne yi dañuy tojante ba ba ci asamaan bi di déglu li yàlla di wax. jinne du nit. dëgg komin woni ngaari jinna dawnode yaade mi yeehi mi arta mi jippori wa dutal mi haɓɓe hunduko ceernaɓe bolla buyde min foof nano e ñaamo funnage e e kaɗo pay ko e ba debbo e gorko ken katarwa kera xam nga foti ko peebi mo mbari da ngay dégg ni day toog ci radio ak ci jinne ni jinne bu neenaane jeego bu ñu gisee ñaaw sax dañuy daw ah, man daa ngeen gu ñaaw sax man wax daa ngeen gu ñaaw fu ma gis daw ci lu wér waaw léegi waxuma laa nag nga ànd ak say jinne léegi da ngay askan wi Euh, waaw kon daal mbokk yi. Thierno looy tàggoo. waaw li may tàggoo. c'est important li may tàggoo. Euh, adresse bi Sicap Mbao la. Mhm. di nuyu waa Sicap Mbao ñëpp li wër Sicap Mbao ñëpp di leen nuyu bu baax di leen ziar di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi waaw c'est important di nuyu waa Sicap bu baax a baax di nuyu suma xarit bi commissaire bi saar ak comme ak euh, camp militaire RG yi ak euh, chef de quartier bi mm-hmm. di nuyu ñëpp di nuyu waa kër gi sumay taalibe ñoom Mamadou ñoom Saliou euh, ñoom Kumba ñoom ñoom ñëpp waa kër ga yëpp dégg nga bu baax a baax ñoom Fatoumata di nuyu ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. adresse bi Sicap Mbao la mm-hmm. Sicap Mbao nag defe naa adduna bi ñëpp xam ne ko mbokk yi numéro baa ngi noonu ci suuf numéro boobu daw noonu ngeen jël ko pour Thierno Moule Sow waaw di sant ñëpp di ñaanal kilifa diine ak kilifa waaw man maa ngi suma ruq di liggéeyal yàlla ak yonente bi mm-hmm. ak Cheikh Ibrahima a ci doomu aadama yi ndax li may def jihaad la dëgg la jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk yi dégg ngeen Thierno Moule Sow di nit ku yàlla baaxal di dimbali doomu aadama yi nga xamante ni bii comme ni mu ko waxee woon léegi rek mission lay dox. mission boobu nag ci kàttanu yàlla bi ngi ci. kon duñ def lu ñaan ko yàlla guddal fanam ci kàttanu yàlla euh, di gërëm ñi nga xam ne ñoo réalisé émission bi. di gërëm suñu confrère bi nga xamante ni bii moom lañ fi fekk muy Jéego Sow yàgg ak moom lool ci rajo yeeg télé yi di gërëm ñi nga xam ni ñoo doon réalisé émission bi mbokk yi Thierno Mourel. fii ci Sicap Mbao waaw jéego da ngay tàggoo wala. waaw duñ def rek lu dul fàttali leen fii ci diwaanu Sicap Mbao la ci kër Thierno Moule Sow la ñu amaloon plateau bi yaakaar naa ñi bëggoon dégg xam-xam dégg nañ ko ñi bëggoon dégg dégg dégg nañ ko ndax euh, ak Thierno mule Sow ay mbégte la ay jëriñ la daal. Mhm. kon laata ñoo tàggatoo duñ def lu dul ma fàttali mbokk yi numéro yi. 77 781 62 40 77. 781 62 42 wala nga woo ko ci 76. 126 73 42 76 126 73 42 Basirou Thiam. jërëjëf Diego def lu dul rek bàyyi leen ak ñi nga xam ni ah ñoom la Thierno fajar ñu di ay témoignage yu wóor. Mhm. ñoo xam ni ci kër gi lañ leen fajati biñ fi ñëw mun ñoo dox kon dañuy bàyyi Diego mu jël témoignage yi. waaw jërëjëf mbokk yi comme nu ko suñu naataango Basiru Thiam doo ko waxee eh, ñu ngi waat fii ci diwaanu Sicap Mbao ba tey ci kër Thierno Moule Sow toog ak fii ak eh, imam Mouhamadul Moustapha Niang eh, di kóllëre Thierno Moule Sow moom tamit duñ def lu dul laaj ko ana lan moo waraloon tey ji tànk yi ci kër Thierno Moule Sow ak fi nga jot a jaar ak Thierno imam jërëjëf Jéego Sow laaj nga ma lu rafet laaj nga ma li loo xam ne sawar naa trop ci kont ko alof Ndiaye nag am na lu ñu léeb nee ñu gis weddi bokku ci lépp looy laam-laame da nga koo gisul waaye ci boo ci tegee bët mu mënatoo koo weddi man Thierno avant may yegg si fii ci Thierno am na ñoo xam ne ñu bari jaar naa ci ñoom mhm. ñoo xam ne mën naa mën naa mën naa rek te boolem ñu ma jaxasoo ci ñooñu gisuma ci ñoom dara yow imam fan nga déggee Thierno ah Thierno Moule foo ko déggee Thierno su ma doom di ñox Thierno ama Tabsir mhm. moo teye rajo ne ma papa ma ne ko naa mu ne ma man de am na koo xam ne dégg naa ko nee nañu borom jinne la te kooku de papa wóolu naa ko de bi ma demee bi ma fa jógee ñëw ne ko gis naa Thierno de ma ne ko kontaan na nag li nga waxoon ci Thierno de gis moo weddi bokku ci gis naa ci loo xam ne macha allah waxu ma la dara yar bi Thierno àndal ak mm. xam-xam bi mu àndal ak tabi gi mu àndal lii def ma suur kël kii Thierno ku mu faj mu wér wallaahi ma indil ko sax xale bu jigéen bi nga xam ne daanaka daa jóge fari ci ay bokkam gundu xatal ko ne dañoo bàyyi seen dina ñëw ci diineem Seydina Mohamed mu ñëw fii bi mu ñëwee Ceerno li mu jëkk a dem ak accueillir ko yaral ko jox ko mu lekk ba suur mu dem ca marché ba set xottil ko yére yu gën a rafet ci yére yi ñawlul ko ko jox ko ñu neeti déet Ceerno ne ko suba ci dimanche ji dinaa la defal cérémonie def na ko it mu jënd nag woo xam ne wat na nag war na wat ñaar fukki junni wala lu ko tegal mu ne xale bu jigéen bi yaa ko moom mu woo nag élimaan yi nga xam ne si gaa mbaaw yëpp nañu ñoo wàcce kaamil nag bi ñu rey ko ñu def ko cérémonie ñoo wàcce juróom-ñaari kaamil ba mu def xatmu bi man ne Ceerno mu ne ma ne ko jégal ma nag xatmu bi man maa koy war a def mu tudde ko it ku baax di yaayam nga xam ne moom moo ñu Ceerno muy Cheikh Soxna Mariam Camara eh, kon nag Ceerno eh, li ñu gis si moom daal wax dëgg yàlla olof Njaay déggoon naa ñu naan wax ku yéex ñàkk dëgg la ku yéex ñàkk de la no macha allah kanam la jëm nag. la ndax dina dimbale nit ci am am dina dimbale nit ci ñàkk. dëgg la mënuñu koo fay loolu dañ ko ñaanal yàlla. gudd fan ak wér ak wër la. yàlla bàyyi ko suñu kanam parce que docteur la kat. te mi ngi faj jàngoro yoo xam ne ñu bari. tele nañu ko. jërëjëf moom yàlla jàppale na ko ko. jërëjëf macha allah. jërëjëf imaam Mouhamadul Moustapha Niang ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci témoignage bi nga def ci Thierno Moule Sow Eh, ba tay ji duñ def lul jall ci señ bi yow tamit dañ la fi gis lu bari ngay xaritu ci romu le di eh, ñenn ci ay pension ñu bëggon xam deug ana lan mo waralon tanki tay ci kër ciar a'udhu billahi samial alim min sharri shaytanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp suñu xol day contane bo ñu tuddé ciarno bu ñuy wax ci moom du ñuy waxee suñu sago ndax dañoo génne ci ay situation yu compliqué yu doy waar man mii ngay waxal mbooro laa jóge mbooro mbooro laa jóge te wallahi la azim Thierno génn na ma ci ay situation yu doy waar ndax man hôpital bu ne dem naa fa fu ne taxaw naa fa ba tax na Thierno lu ma di jàpp rek soo ba ca ngoon man man ci lola ndax li ma defal munu mako sax di expliquer ma dama ndax amna na ci lo xamanteni yow mi ko yëg ya ko yëg bon te ceerno li ma defal man mako ko deug nga mhm. parce que ceerno bi mi door installé wu fi la fi ñewoon mhm. jamono yoy non hôpital bu ne dem naf parce que man dama don fat mhm. deug nga du ma mën a mi dara tawul ma tok sama kër ma soxna day joy guddi ak beccëk ma tok sama kër ben jour bon euh, di déglu ben émission Thierno ma ni man daal c'est man sama famille décourager nañ fini ne ci juk dima fay man ma sama pexé bop naa jéem a jóg ci sama la ndax yonent bi nee na ah, inna li kulli daayin dawaawun nee na feebar bu nek amna lu koy amna lu koy fajj kon sama mhm. na pour fajju ci di émission bi daal di ñëw ci Thierno. booba Thierno nekkul fii de ma nga woon fële. wallaahi na woon dégg nga bi ma fa demee gisanteeg moom nu waxtaan. dégg nga suur bi ñu waxtaanee ma ak moom mu defal may affaire. jox ma cuuraay. dégg nga ma delluwaat Mboro. kere bi ma yeggee sama soxna dafa kontaan bay jooy. ni ma alaaj lu ma ne ko ah mu ne ma da tëdd di. ma ne ko waaw ah, dama tëdd. mu ne ma lii fan yii yëpp yow daa wut tëdd da nga daan toog ba bët set. ma ne ko si. waaye nag damaa defe nii man mii yàlla dimbali na ma daal ndax li ma yëg ci saa yaram mhm. musuma koo yëg c'est la première fois ma yëg ko mhm. ba taxan na toll na jamono mhm. dëgg dama doon sabablu ji rek waaye gëmatuma woon ni man dinaa tane dégg nga waaye nag yàlla mi dara tawul te c'est la ma Ceerno bi ma taseleeg Ceerno mu jox ma ay garab dégg nga xoolal ma utiliser garab trois jours ci laa tane barka yonent bi ba fii may waxee yow kere bi ma Thierno joxe garab yi ak léegi kere laa mujj hôpital léegi yow ana lan ngay wax ñi nga xamante ne dañoo wër seen sëriñ ba sonn gisuñu ko eh, dem ba ne nañ toog xaar yàlla lu yàlla def baax na ana lan ngay ñaax ñooñu ñooñu li ma leen di ñaax mooy bu ñu découragé mhm. waxuma la ku feebar de mais ku feebar bu yàgg laay wax mhm. ko feebar ay at ba famille jaaxle ci moom. Mm-hmm. dégg nga wala famille yaakaar ni kii dootul tane. Mm-hmm. kooku laa soxla ñu koy indil cerno. cerno moo lay soxla man mii wax ak yow. Mm-hmm. wallaahi lazim sama tëray bàmmeel. barki démb dama sama benn maam dafa feebaroon. bi mu feebaree tension ko jàppan. ci bopp bi. ba yéeg ci bopp bi. xaw koo sonal. ndax mag la mi ngi ay quatre-vingt-douze ans. dëgg dégg nga xam nga loolu moom. dafa feebar bu doy waar la. jërëjëf léegi. ci laa gisee benn benn gaayen sama benn moroom. mu amee comme feebar bi mu amee woon. mais dama ko wax ni sëñ bi. mu ni ah ma ne ko jógal jógal de génn l'hôpital bi nga dem ci Thierno Moule. mu faj la jox ko numéro téléphone. dëgg la tàngoor tàngoor kon képp koo xamante ni. yaa ngi amee feebar. ah. bul découragé mukk. la bul tàyyi ci faju dëgg la man jàll naa jaar naa foo xamante demal naa ba sama famille sax. dañ maa bàyyi woon pour faj. jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf. man ku ma laaj ci Thierno Moule Sow si sawar a tontu. waaw parce que du loo xam ne dañ iya, ma ko nettali si moom mhm. man dama dégg Thierno lay saw doon dund ay jafe-jafe waaw jafe-jafe yi ma doon dund nag fu ne dem naa fa mhm. fu ne mhm. sëriñoo sëriñ dem naa fa mais jafe-jafe yi ma doon dañ ma takkaloon ay téere ba ma mel ni mbërëm làmb déedéet kay mais bi ma ex bi ma bi ma dégg Thierno lay saw laa tekki lépp teg nga xam roy du niroo pire na lay laaj dinaa si sawar a tontu parce que daf maa defal ma gis waaw li ma mu lay Sow defal moo di ne toll woon naa guddi yoo xam ne lu ma liggéey bëccëg su ma tëddee guddi liggéeyaat ko du ma nelaw lu ma liggéey bëccëg su ma su ma tëddee dinaa ko liggéeyaat lépp damay tëdd du ma nelaw àndaax faru rab boo xam ne cent damay yor ay batiment di liggéey centaine de millions mais du jaar day ñëw rek dem day mel ni lu ñu muy yónni di ñëw di dem mu doon loo xam ne toll na foo xam ne sama yaram moo si tas mais du ma ko jariñoo nit ñi ñoo koy jariñoo mais bi ma yàlla wanalee ak mu Moule Sow ba ma ñëw ba si moom defal na ma loo xam ne ba ma ñibbee man xam naa ne roy du niroo pire. dëgg la waaw. Mm-hmm. El Hadj yow laataa ngaa ñëw ci Thierno est-ce que jot nga am foo dem. waaw dem naa fu ne moom. jot nga faju dem waaw fu ne fu ne. mais est-ce daan nga fa gis résultat. non dëgg dëgg ba ma fa gisoon résultat duma ma ñëw fii. Mm. waaw. Euh, su ma sama mu Moule Sow bu ma wooyee muy guddi muy bëccëg lu ma jàppoon dama koy bàyyi ñëw wuy sikk dëgg la lu mu lu ma doon def damay koy dama koy bàyyi ñëw wuy sikka mhm. na mu Moule Sow nag damay wax ne am na sëriñ yoo xam ne mën nañoo lem seeni i dem toog man boo gisee du ma seetaan émission yi ñuy def si télé yi sax Thierno Moule Sow moo tax du ma seetaan émission parce que damay dégg Thierno Moule Sow mu naan euh, jinne kenn mënul taxaw di wax ak moom mu di la tontu waaw te loolu damaa gëm ne dëgg la damaa gëm ne dëgg la li ma la mën a wax moo de ne nit ku nekk Sénégal am feebar bu la jaaxal mbaa nga dégg nit ku feebar jaaxal yebal ko kër Thierno Moule Sow man de ku ne dama koy daf maa defal ma gis mhm. li may wax nag waxuma ko pour nit ñi fi mhm. parce que lii du si nun kese la yem mhm. su ma ko waxee ngir nit ñi fi toog rek mhm. wala bëgg lu neex ceer na Thierno Moulé Sow mhm. wala ku jàkkaarloo xam ne danaan a ah, waa jàng na leen dadu dadul loo xam ne du yem fii waaw te Thierno doon na nit koo xam ne wax fa dëgg xam yàlla mu ngi dimbali nit ñi mu ngi dimbali nit ñi man day wax fa dëgg xam yàlla li ma daloon lépp si moom laa ko dindee depuis booba léegi dematuma fenn waaw mbokk yi ba tey ñu delluwaat uh, fii ci kër mu Moulé Sow janoog ñaari soxna yi Eh, ñu fas yéene leen laaj ana lan moo nekkoon seen tànk ci kër Thierno Moule Sow yaay booy ñu ngi lay nuyu. Mm, maa ngi yaakaar naa doo gan ci kër gi. man kay du waaw borom xam-xam bu mag la nag. Mm-hmm. toog nii eh, di xaritu Thierno Moule Sow di wëlëre Thierno Moule Sow moom yaakaar naa dinañu débattre bu baax a baax eh, fan la jot a jaar ak Thierno Moule Sow yaay booy. may di ñaan nak ci loolu nga ma wax. Mhm. bo ma ci laaje dina sawar. deug la ndax weer di gis bokku ci. Mhm. te na daf ma won luma gis. Mhm. waaw ndax man mi kérok ba may ñew fi man xamna naa ne jaxasoo waye kuma gis ci mbedd bi may da danga na ki dal dof bu recc ay mbokam la. ndax bo ba xamna ne man jaxasoo naa. bu ma manuma lekk manuma naan keroog bi ma jëkkee ñëw fii kër na mu lay saw ma toog toppante bran si saal bi ah ma ne man mii tëdd fii di gëmmantu bay nelaw ah lii de rëy na te loolu daanoo ko def te man daaw ko am ndax man fu ne dem naa fa faju fa masuma gis benn résultat tey jii ma ñëw toog fii samay bët may gëmmantu bay nelaw ci bi mhm. man kay duutuma ñibbi fi lay dekk ndax man fu ne dugg na fa di faju gisuma ci ben resultat deug la hôpital dañu bind bind ay garab ba sonna jox ma ba bindal ma ay dom ndax ma mëna nelaw pour ngay mëna nelaw calme mané bu ma nané garab yu guddii mhm. ñi dox beccëk ma leen gëna mëna xol guddii gi hmm? ma nelaw guddii duma nelaw beccëk mhm. sama put gi duma lek bu ma naanee mu melni yak galandu hmm? ndox mi du dem deug la keroog bi ma ñëwee fii. Mhm. tëdd ba nelaw. Mhm. laa na kër na gi mhm. am na lu fi nekk. fii am na lu fi ne. fii daal man bu ma yoboo ma toog rek bañ a tee ñibbi. ndax samay mbokk dañu faja faja faj ba sonn. far lii bëri ma. ma toog benn bés nag. dégg rajo bi wax. ba tudde Thierno Mouleye. te man li may jànkonteel lépp na wax ko rajo bi. man man dinaa jóg. dem si kambaaw ndax tëngéej ke dëkk si kambaaw du ma ah ba ñew mhm. bi ma ñëwee mhm. toppante brang mhm. ba sama brang exi ba sama brang exi ma gis ak tierno ba ma gisee ak tierno kërok ba ma gisee ak tierno sax dama doon joy mu mel ni li woon sama bopp dafa wàññi si wàcc si sama dënn. wallaahi wallaahi moo ma tax di wax nii. Mm, waaw lu ma wax sax damay xeeb. kon duñ def lu dul di la jaajëfal ci témoignage bu rafet bi nga def wallaahi wallaahi jërëjëf yaay mbokk yi ñu ngi leen jox rendez-vous ci kàttun yàlla. ak beneen numéro ak Thierno affaire bi fii la Sicap Mbao mm. LCS la scène sénégalaise mm-hmm. jërë ngeen jëf